الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bokk jullit yi ñu ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla lépp lu ngeen di wax mu doon wax ju jub kon yàlla dana yéwénal seeni mbir yépp baal leen seeni bakkaar ki topp yàlla topp yonenti yàlla kooku rek mooy ki texe àdduna ak alaaxira mbokk jullit yàlla dogal na aj makka waxtu wu ami ba jullit ñi daje fa dafay am amir bu jiite at gi fokk mu defal leen ab xutba donte ne ba ca gën a siiw mooy xutba ba ñuy def ca Arafat waaye donte ne mënuñoo teewe at yëpp mënuñoo teewe at yëpp it am na at goo xamee ne nii jullit waru koo fàtte mukk mooy ajug yonent ba sallallahu alayhi wa sallam at googee ñu tudde woon ajug tàggatooga yonent bi yëgle na ni ca atum fukkeel ma day dem aji ji mboolem ña nga xam ne dañoo waroon madina ak ña jege woon makka ñépp ña man daldi takk ngire xéewloo ànd ak at yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak moom ca jëmmam ja sallallahu alayhi wa sallam ak tegginam ya nga xamee ne nii moom la doon jàngale ba loolu moo tax ba keroog ba muy dem makka mi ngi ànd ak téeméeri junni ak ñeen fukki junni ci ay nit ca loolee ku xam loo xam ne mat na junni at ak nangam ci gannaaw daanaka suñuy waxte ay 3 millions wala 5 millions daanaka lim boobee lay méngool ñu ñëw ànd ak moom sallallahu alayhi wa sallam bokk na lam jëkk a wone njàngalem gam jàngale ci suufeel boppam anas ibnu malik radiallahu anhu nee na la nga xam ne moom la tegoon ca giléem ga war caa toog ca nga gis ne buur yu bari dañ koy puukarewoo am ñoo xam ne dañ koy def sax en or moom benn der boo xam ne nii nee na daanaka ci ñeenti dërëm lay toll ca la yonent bi alayhi salaam tegoon ca giléemam ga daa di wone ak toroxlu daa di na yàlla maa ngi jëm ci acc aj goo xam ne ngistal amu ca aj goo xam ne ndiggital amu ca mu safaanoog suñuy aji tey yu bari ay aji super classe ak aji yu kenn xamul mbokk aj màkk mooy loolu léppam ba baa ngay nibbi day wone na toroxlu gi ngay toroxlul sa boroom suufe gi ngay suufe ñeel sa boroom ca loolu it mbokk muy jukko julit ngalawaay xamal ne julit bokk na lu gën a màgg ci loo xam ne yàlla sàkk na ko ci yow mooy nga suufeel sa bopp ci yàlla tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne koo xam ne lu toll ne pepp poussière daa nekk ci xolam ci rëy ku mel noonu du dugg aljanna noonee la ko sahaaba yi gisee sallallahu alayhi wa sallam mu seen cafeel yokku ca moom mu ànd ak ñoom ci ajam gu tedd googee xutba leen fa ay xutba mu bokk ci la nga xamee ne nii mën nañ ko caa jële ci lu mu màgg lool mooy delloolu nit ñi ci seen boroom ca loolu la daan ubbee xutbaam yépp xamal leen ne ay yéen nit ñi mboole mi cant yàlla rek la ñeel ay yéen nit ñi yàlla mooy ki nga xam ne kenn waru koo bokkaale ak kenn ngalla waaye jéggalu leen ko seeni bakkaar ngalla waay topp leen yàlla ragal leen yàlla delloo doomu aadama yi ci yàlla ndax loolu dong moo nekkoon am mission sallallahu alayhi wa sallam loolu it moo nekkoon mission mboole mi yonent yàlla yónni te mooy wooli woo nit ñi jëme leen ci yàlla ba ba adduna di yàqu doomu aadama yi commencé woo nit ñi di jëmale seen maam di woo nit ñi di jëmale seen bopp la wallahi mbokk yonent yëpp dañ doon woo nit ñi jëmale leen ci yàlla xam ne yàlla rek kay yàlla yàlla dong la ñu war a ragal moom dong la ñu war a yaakaar waaye gannaaw loolu sallallahu alayhi wa sallam ñaax na leen ci ne nga la way ab julit war naa góorgóorlu ba adduna bi mu jóge fi ngiree bañ a fee tooñ kenn la nga xam ne mooy sa jubluwaay bi gën a mag mooy nooy def ba jëriñ doomu aadama yi ki gën ci doomu aadama yi mooy ki ci ëpp njëriñ waaye ngallaawaay boo mënul jëriñee it nga fexe ba bul tooñ bokkoon na loo xam ne yéefar yi Makka yi dañ ko warmaaloon muy Makka bokkoon na loo xam ne dañ ko warmaaloon muy weeru acc yonent bi alayhi salaam na leen waaye yéen ci ban dëkk ngeen nekk xanaa fii du Makka ñu ne ko ah kay ban weer lañu nekk xanaa du ashhurul hurum ci zulhijja ñu ne ko ah kay mu ne wallahi maa ngi leen di xamal ne seen deret seen alal ak la nga xamee ni nii moom mooy seeni bakkan ak seeni der araam na ci yéen ni mu araamee place bi ak ni mu araamee waxtu wi loolu mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax mbokk jullit du tuur deretu mbokk jullitam abadan jullit du lekk alalu mbokk jullitam abadan jullit du yàq deru ab mbokk jullitam abadan islaam nekk diina boo xamee ne nii dafay sàmm la nga xam ne mooy diini a araamal bépp bokkaale ak bépp murtad sàmm la nga xam ne mooy xel yi araamal lépp lu ko yàq te sàngara yi ak lu mel noonu araamal la nga xamee ne nii aar bakkan yi kenn du rey kenn kenn du tur deretu kenn ñoŋal alal yi yeneen bi alayhi salaam ne leen lii di riba xaram na jullit du jëflante ak moroomam ak kum mën a doon ci riba lii di sàcc xaram na waaye it lii nga xam ne mooy ak kóolute képp koo xam ne nii dañ koo wóolu ci dara ngal la waaye kóolute googu na ko sàmm te yàlla dana ko ko laaj yowmal qiyaama mu bokk li gën a tardeel suñu réew yi li gën a tardeel la nga xam ne mooy nit ñi mooy ñàkk kóolute tey jii da ngay gis doomu aadama yi koo wóolu mu wor la ku ñu jox responsabilité na doon ña gën a kawe ca gouvernement ya wala ca lu mën a doon da ngay jàpp yow sa bopp nga fa war a nekkal loolee mbokk di musiba bu rëy boo xam ne ni yonent bi alayhi salaam moytulu woon nañu ko su ko defee yow julit ngal la waay nga bàyyi xel ci loolu bokkoon na sallallahu alayhi wa sallam li mu ñu jàngale ca xutbaam bu màgg boobee xam leen ne day ki ki gën ci yéen nekkul ab arab moom moo gën ku ñuul wala koo xam ne dafa xonq moo gën ko weex ki gën ci doomu aadama yi mooy ki gën a ragal yàlla lii mbokk mooy la nga xamee ne nii tey jii bu ñuy demee ba en 1945 mu am li ñuy tuddee déclaration universelle des droits de l'homme wane ne doomu aadama yépp ñoo yem mbokk ñooñu tardé nañu quatorze siècle ka leen ca jiitu woon mooy suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam doomu aadama yépp mu ne seen boroom benn la seen baay benn la ki gën ci yéen du ko xonq wala ko weex wala kiy lakk nangam wala nangam ki gën ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla mbokk lii mooy moo taxoon ba lislaam doon tasaaroo démb mboolem xeet yépp dugg ci ndax dañoo ñëw gis ne mooy diine yemale nit ñi demal tey dans tous les civilisations yu am ci àdduna bi dañoo séddale doomu aadama yi ay aristocrate ak ay badoola mi ngi noonu am maar islam bu ñëwee danaan déedéet yéen ñëpp a yem xoolal sàpp bi ni ngeen toogee joolaa ngi toog ci kanamu séeréer njaagoo ngi toog ci kanamu bambara un milliardaire mi ngi toog ci koo xam ne bàyyiwul dépense këram mi ngi noonu yéen ñépp a yem ci kanamu borom bi subhanahu wa taala mbokk lii mooy la nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woote woon fàtte ko fàttali ko ca la nga xam ne mooy ajam gu mag a googe waaye mbokk yonent boobu waxoon na leen ne ay yéen góor ñi xam leen ne seen soxna yii day am ngeen àq ci ñoom na am am ngeen àq ci ñoom ci ñu war leen a topp war leen a déggal waaye yii nit ñoom am nañu àq ci yéen ngallaawaay bu leen soxna yi toppee déggal leen rafetal leen seen nekkin ak ñoom rafetal leen seen bu yor loolee mooy la nga xamee ni nii daana ko wax sallallahu alayhi wa sallam ki gën ci yéen mooy ka nga xam ne dafa gën ci ak njabootam lii it mbokk mi ngi noonu muy wane ne képp ci ñun ci góor ak jigéen tey bu ñuy wax naan yeewi yeewi jigéen ñi ak islaam nangam mbokk wallaay déedéet islaam moo jox jigéen ak xam xamal ñu ne du góor moo gën jigéen abadan du jigéen moo gën góor ku nekk daa am place boo xam ne yàlla moo ko ko teg suñu borom mu ne ki gën ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla aka bari ay couple ka nga xam ne mooy soxna sa moo gën a màgg fuuf ci yàlla kii di borom këram lu waral loolu ngëñal bi nekkul ci góor wala mi ngi ci jigéen waaye mi ngi nekk ci topp ndigalu yàlla ak déggal borom bi jalla wa ala ay yéen mbokk julit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog ca xutbam bu màgg boobu nee na ay yéen nit ñi yàlla dana ma leen laaj yowmal qiyaama ndax man jottali naa lim li ma yónni woon ci yo ci yéen ñu ne ko ah kay yomu yàlla yónni jottali nga laay ngi biir xeet bi jihaad nga ci yàlla dëgg-dëgg jihaad mu yëkkati baaraamam bu tedd ba ci kaw asamaan daa dina allahuma ashhad ay yàlla seedeel lii mbokk tamit mooy la yahud yi gëm nasaraan yi gëm ko képp ko xelam yaquwul gëm ko mooy suñu borom yàlla mu nga ci kaw asamaanam ya ca kaw arasham ba ba baa ay xalaat ñëw jóge Inde tasaaroo ci kaw suuf ay ñenn doomu aadama ñuy dem ba naan yàlla day wàcc ci ay doomu aadama mi ngi noonu nasaraan yi ñu ne yàlla dafa wàcc ci Isa Isa mooy yàlla yàlla mooy Isa am ñoo xam ne ñoo gën a doy di ñoom ñépp sax ñoom dañ dem ba ne yàlla mooy lépp yàlla ngi fépp yàlla mooy lépp laa wallahi mbokk loolu ab yonent musu ko wax la yonent yi waxoon mooy yàlla mi ngi ci kaw asamaanam ya leneen lu dul yàlla ay mbindaafan la yowmal qiyaama la ñuy gis suñu borom ci àjjana yàlla na yàlla boole ñu ci ñooñu mbokk yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam tamit ne woon na leen ay yéen doomu aadama yi xam leen ne lépp lu ngeen liggéey yowmal qiyaama su ngeen demee seen borom dana leen ko laaj ay yow doomu aadama góor ak jigéen bàyyil xel suñu borom yàlla nee na fa man yaamal misqaala zarratin xayran yara wa man yaamal misqaala zarratin charran yara loo mas a def ci kaw suuf loo mas a wax ci kaw suuf da nga taxaw sa kanamu boroom sa borom laaj la waaye yow bi sangam li nga def lu tax nga def ko bi sangam li nga wax lu tax nga wax ko loolee moo tax ba ki xel war nay xisaab boppam bala ko yàlla di xisaab di xool sa gannaaw ana yan erreur nga jot def sa diggante ak sa borom nga tuub ko tuub gu sell ana lan mooy la manqué loo xam ne defoo ko nga gaaw dabantal ko bala nga dem ci kanamu borom bi naan ko yàlla may ma ma dellu àdduna comme na ko yéefiri nar a waxe loolu mbokk ngeen bàyyi ci xel bu baax a rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na it ay yéen doomu aadama yi maa ngi leen di bàyyiloo xel ci ne day a yowmal qiyaama yàlla subhanahu wa taala day dana ma fa may benn déeg waaye déeg boobee day dana am la nga xamee ni nii mooy ñi ma gëmoon ñëw di ci naan muy déeg boo xam ne nekk na six cent kilomètres carré la ca nekk ci ay naanukaay bari na comme biddiw yi waaye mu ne malaaka yi day daañ puus leen ci sama xeet di leen delloo gannaaw man a yàlla ñii sama xeet lañ bokk ñu ne ma déedéet muhammad yow ñii xamoo lan lañ sosoon ci sa gannaaw te mooy la nga fa bàyyi woon lépp soppi nañ ko man na leen kon nañ ma sori nañ ma sori looloo tax ba doomu aadama ngal la waaye bàyyil xel li ngay wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ki la yàlla yónnee mooy yonent yàlla muhammad yonent yàlla muhammad moom moom nga war a gëstu lan la jàngale woon moom nga war a topp doo dem mukk wàcc bàmmeel ñu lay laaj ndax xamoon nga imam Sarr ndax xamoon nga imam Diop wala imam si laa wallahi kenn lay laaj mooy kan mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam liñ lay laaj mooy diini lislaam loolee kon nee na ñu puus leen lu waral loolu mooy dañoo teggi woon la nga xam ne mooy sunna looloo tax ba mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanañu wax ay yéen nit ñi xam leen ne day seytaane moom dem na ba naagu jàpp na ne lii nga xam ne mooy makka ak li ko wër kenn dootu ko fa jaamu te it fa lillahi alhamdu boo wëree planète terre ña nga xam ne ñoo gën a mucc ca la nga xam ne mooy ay xërëm ak i xarfa foofa mooy la nga xam ne mooy diggante Makka ak Madina mu ne waaye nag seytaane day du du du du gàttal ñu mukk ngiree alage leen ci leneen yi nga xam ne da ngeen koy xeeb ay yow doomu aadama moytul na man bokkaaliwu ma sama boroom rek jeex na la wallahi aka bari ñuy nar a sax biir sawara at yoo xam ne yàlla ko xam ngir njaaloo aka bari ñuy yàgg sawara lool ngir sàcc aka bari ñuy yàgg sa sawara lool ngir njaaloo aka bari ñuy yàgg sawara lool ngir yàq gën doon yàq deru jullit ñi ak tuur deretu jullit ñi loolee kon mu ne loolu seytaane xeebul loolu bokk na la nga xamee ne it seytaane xeebu ko fexe ba jaxasaleen seen diggante loolee ngeen bàyyi ci xel bu baax di nemmeekonte di xool li ngay wax di xool li ngay jëf waaye it di jéem a jéggale ndax seytaane la nga xam ne moo ko gën a itteel mooy ni muy def ba teqale diggante xoolu julit ñi ay yéen mbokk julit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog ne woon na leen man day ma danaa dem waaye maa ngi bàyyi ci yéen loo xam ne fii ak yéen a ngi ci jàpp du ngeen réer sama gannaaw mukk ca muy téere yàlla bi ak sunna yonent yàlla bi loolu it mbokk muy wane ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog ba mu faatoo lam ñu bàyyeel muy ab téeréem na am aka bari ay wax yonent bi ñëw na ci ñoom yonent bi ziyaar na ci ñoom bal am na sax ñoom ñu ne yonent bi judduwaat ne fii ba nekkaat fi am fa ay doom loolu mbokk seeni wax la waaye wallahi lazi la ilaha illa hu rasul sallallahu alayhi wa sallam keroog ba mu faatoo sahabaam ya sangu ko yóbbu ko suul ko ñu koy ziyaara ci xabroom booba ilaa yawmina haza balaa génn xabroom boobee yowmal qiyaama lay doon mooy kii jëkk a génn ci kaw suuf ci biir suuf sallallahu alayhi wa sallam julit ñaa ngay dajeeg moom ci dig boobee ñu wax ci yéen sànq lan la ñu bàyyee lam indi woon lépp mi ngi fi yàlla moo ko garanti suñu borom nee na inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafizun mboolem li yonent bi indi woon man maa koy garante bi ila yawmi diin téere bi yàlla baa ngi nii ngeen di ko jàng guddi ak bëccëg sunna yonent baa ngi nii ku ko bëgg a xam-xam ko lii dong la yàlla sàkku ci ñun lii bi nga xamee ne yonent bi alayhi salaam wax na ko gannaaw ba nag mu ne ay yéen fal yuballighi shahidi minkum al ghaib ay yéen ñi ma dégg ngalla waaye na ngeen jottali ñépp ñoo xamee ne nii dégguñu woon mbokk keroog yonent bi alayhi salaam yàlla def na kawtéef waxam yam doon wax am na ñenn ñu doon jottali waaye da ngay gis lenn ci ay sahaaba ñu ne ñun day nekkoon nañ fa gën a sori ca place yam nekkoon ca Mina waaye nañ doon dégge wax yonent bi dégg wuñ ko wax ko doon jottali te boobu haut-parleur amul amplificateur amul yàlla ubbil ko noppi sahabatul kiram cent quarante mille muy wax ak ñoom sans haut-parleur ñépp dégg li muy wax mu ne nag yéen ñi dégg sama wax ji jottali leen ko ña nga xam ne dégguñu aka bari ku ñu jottali mu gën a comprendre kaka ko jottali naam aka bari koo dem jottali ab aaya wala nga jottali ko hadis yonent bi mu xam ca loo xam ne yow mi ka ko jottali xamoo ko ca loole it mbokk mi ngi noonu ñun suñu diine yi góor ak jigéen amuñu la nga xam ne yeneen diine yi dañ koo nekkoon nga xam ne woote ci yàlla dafa ñu ngi ko jagleel la wallahi mbokk ñun diine lislaam góor jigéen mag ndaw foo toll da nga war a nekk di woote ci lislaam di diglu lu baax di teru lu bon ñu jiitu ci ñooñu rawatina yéen jigéen ñi mooy la nga xam ne mooy seen njaboot yi xam jàng leen diine xamal leen diine teete leen ci diine lii mooy la nga xam ne nii rasul sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ak sahabatul kiram ba mu jógee ci adam googee sallallahu alayhi wa sallam dundul lu dul ñetti weer daal di wuy ji boroomam sallallahu alayhi wa sallam mi ngi noonu sahabatul kiram ñoom jàpp nañ ñoo jàppoon ne responsabilité bi léegi ci seen lo seen loos la gàllu responsabilité seen loos la gàll la gàllu moo tax tey boo demoon sahabatul kiram dëkk yi gën a tedd mooy Makka ak Madina waaye wallahi daanaka bu doon te ne da nga ne cent mille lañu quatre-vingt-dix mille yépp ci àll bi lañ lañu faatu ñee nga jaar Syrie ñee Irak ñee dugg Afrique ñee dugg nangam fu nekk ngir lan ngir jottali sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax xam nañu ne loolu rek mooy tax ñu texe mbokk kon xutba baa ngi nii du xutba bi yonent bi heure boo xamee ni nii aj Makka jot na ku nekk ci ñun war caa bàyyi xel kemtalal kattanam la ca jiitu sa digganteeg sa boroom bu ci boole keneen yàlla mooy yàlla wéetal ak moom wéetal ko la nga xamee ne nii mooy sa mbokk julit fexeel ba bu ci lor kenn du seen der du seen alal du la nga xam ne mooy seeni bakkan gannaaw ba loolee way dencante yi ku nekk ci yéen na fekk nu mu yërëme moroomam nu mu mën a jëriñe moroomam bàyyi xel ci la nga xamee ne nii sa mbokk julit yi ku nekk jàpp ne sa moroom moo la gën ngeen bëggante soppante ku ne suufe sa kanamu mboroom ngeen bàyyi xel suñu noon bu mag bi di seytaan bëgg na yàq suñu diggante waaye bëgg nañu defloo bakkaar yi ñu bàyyi xel keroog ba ñu yàlla di laaj suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam ndax ñun toppoon nañ ko waaye bàyyi xalit keroog ba ñu yàlla di taxawal keroog bi ñu majeure ba keroog bi suñu ruux génnee mboolem liñ fi waxoon mboolem luñ fi defoon mboolem luñ fi bindoon suñu borom yàlla laaj ñu ci lu taxoon ñu def loolee waaye it ñu góorgóorlu bàyyi xel bu baax a baax la nga xamee ne nii moom mooy téere bi yàlla bi ak sunna yonent bi alayhi salatu wasalaam jàng ko suñu kemtaleel kattan waaye jottali ko suñu kemtaleel kattan lii mooy ndénkaana bu mag boobee suñu borom yàlla jaarale woon ci lemmiñu yonent bi alayhi salaam dénkuñu ko yal na yàlla dugal ko suñuy nopp dugal ko suñuy xol feeñal ko suñuy jëf yal nañu yàlla boole yonent bi ak i sahabaam ci àjjana yi nga xam ne mooy gën a kawe yal nañu yàlla musal ci pexe seytaan bi bëgg a yàq la nga xam ne mooy suñu diggante yal na yàlla boole ci suñu boole suñuy xol ca boole ñu ca la nga xam ne mooy ngërëmam yal nañu yàlla xamal téeréem bi yal nañu yàlla xamal sunna yonentam bi yal nañu yàlla wërsëgal ñu dund ko nam ko gërëmi allahuma rabbana atina fi dunya hasana wa fi lakhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala mursalin والحمد لله رب العالمين